الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مكجلتي jullit ديلوسي noo ngi dellu si سي sant borom bi subhanahu wa taala bataaxal bi nga xam ne al cheikhu Muhammad ibn Ibrahim ali cheikh rahimahullahu taala bindoon na ko ngir tontu jenn waay ci jéema yoonal ak daganal lii di gàmmu ak tontu ay lënt lënt yu aju ci loola si saraa gi nga xam ne alcheikh mustapha ibni muhammad mabram xafidahu llahu taala chara na ko ko si jotaay yi weesu ñu taxawoon si yenn lënt-lënt yi ak ne ko cheikh bi tontoo ci ay firnde ba fa cheikh mustapha raximahu xafidahu llahu taala di waxee انتقل رحمه الله إلى الجواب عن الشبهة الثالثة من موم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى دل دي تخوسي نتلو لنت لنت بن من وأما استدلال الشنقيطي على أن البدعة في الدين تكون حسنة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية التراويح نعمة البدعة هذه فاستدلال فاستدلال ليس في محله mu ne ñetteelu lënt lënt bi te mooy waa jii di Ashinqiiti jéema yoonal gi yoonal lii di gàmmu ak ko ci ne bidaa yenn saay dina nekk bidaa bu rafet di sa jéema sukkandiku كيوخي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بم وخيسي مرمي دي نافلي كور دي تراويح دي نافلي ني دف غناو سي ويرو كور عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بم جوخيني نعمة البدعة هذه لدي بدا برفر ndax loolee def sa jublu bidaa si diine kalla nee na loolee istidlaalun laysa fi maxalli maanaam di jéem a wut lay la ak di sukkandiku si loo xam ne du foofa ndax nee na Omar jubluwu si ngir di rafetal benn bidaa si diine loolee jullit du ko wax ku ànd ak am xelam du ko wax ne Omar da fay jema rafetal ay bida ci diine bida yo xamne jaamu yàlla moko ko tax a Omar bi nga xamne moy al xalifatu rashid bi khalifa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jubon xoj di jubale jëme ci li fi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baye nga gis ne nee na kon cheikh bi dina dajji wax jii nii lënt lënt bii ci yenn tuxal yi muy tuxal ci borom xam-xam yi comme sa jiital di achaatubi fi lictisaam rahimahu llahu taala ba mu xëy ne innama sammaha bidaatan biictibaari zahiri alxaal min xayt tarakaha rasulu llahi sal allahu alayhi wasallam واتفق أنه لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لأن هذه بدعة من حيث المعنى فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي مما الشاطبي رحمه الله تعالى منع عمر لتخمت الدين برمي بدعة معنى ما نافل koor لك ورلون مو ملوكان و ننكو دفي اك ملوكان و gannaaw ba nga xamee ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam da ko bàyyi woon lu jiitu muy faatu loolee yenente bi soo sallam moo ko njëkk def kon loolu mooy njëkk a wane ne sax du bida dinañ ci ñëw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam moo njëkk a jiite jullit ñi naafilay koor di taraawix waaye bi mu demee ba ragal yàlla subhanahu wa taala farataal ko ci xeet wi boo gisee xër gi saxaaba yi xëroon ak jullit ñi jàkka ji daan fees dell si ñetteelu guddi ga mu bàyyi ko noonee la ko bàyyee ba ni mu génnee àdduna defaatu ko waaye moom moo ko njëkk a def moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam achaatibi rahimahullahu taala mu ne kadalik si jamonoy abou bakr daanuñu ko def maanaam mbir mi dem ba mel ni dañ koo fàtte ndax gëj a gëj a def giñ ko gëj def Umar ibn al-Khattab ñëw nag dajalewaat nit ñi ci loola mu mel ni lu bees ci nit ñi gannaaw bañ ko bàyyee lu yàgg kon zaahirul xaal boobu maanaam melokaan woowu ak noonee mbir mi eh, beesaatee lañ ko tuddee ne lii day bidaa la bu rafet doon dina ci wàllu diine du bidaa ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko njëkk def comme niñ ko junjee léegi dinañ ci gën a indi ak yaatal kon mu ne ci kaw loola du du yell mukk ngay sukkandiku si lu mel nii ngir yoonal lenn luy bidaa comme waa ji di Shinqiti bi nii eh, nii mu ko waxee ak nii mu koy bëgg jëfëndiko ak mboolem bidaakat yi ndax li ni du waji ji rek moom moo siy sukkandiku ngir saxal gàmmu dedet waye mboolem bidaakat yi da nga leen di fekk ñuy sukkandiku ci yu mel nii jël waxe umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu ni'mat al-bid'ah hadhihi diko jëfëndiko dangay fekk mu ne lii wane ne lii istidlaal baatil maanaam jëfandikoo gi ak di sukkandiku si lu mel nii du lu wér neen la ñi fi jiitu woon si lislaam kenn mosu fee sos benn bidaa bay sukkandiku si waxi Omar ibn al ndax ñoom ñëpp xam nañ ne Omar jublu si benn yoon bida ci diine sos bida mu ne doo fekk ndaw saxaaba yi wala kibaaru tabiin di ña toppoon si saxaaba ya seen magnya, ña ak ña toppoon si ñoom ak xam gi ñu xam li omar wax ànd ak loolu daanuñu sukkandiku si waxi omar bii nii ci la feeñoon si ay bidaa maanaam am na ay bidaa yu commencé woon du judd waaye amul kenn ku mës a istidlaal ku mës a di sukkandiku sa waxe omar ngir yoonal bidaa bal bidaa yooye yëpp comme niñ la ko junjee woon saa su bidaa mës a xew rek da ngay fekk commencé saxaaba ya ak ñu topp si ñoom ñu taxaw temm ngir tere bidaa boobee ak jàjj seeni boroom moo xam bidaa si wàllu pas yi la wala bidaaya si wàllu wax yi la wala bidaa si wàllu jëf yi si wàllu jaamu yàlla yi dañ daan delloo mbooleem luy bidaa eh, daan tontu ay lënt-lënt ci lu aju ci loolee bu fekkoon nekkoon kon bidaa ci diine am na maanaam yoon la wala lu ñu yoonal la daan nañ jëfandikoo wax Omar bi wala di si istidlaalo waye do ko fekk mukk kenn si ñu jitu won di istidlaale si wax omar bi ni mama cheikh mohammed ibrahim dal li way di tudd wax boroom xam-xam ci lolu mu indi waxu cheikh al islam ibnu taymiyata rahimahullahu taala ci terem bi di iqtida al-mustaqim as-sirat الصراط المستقيم موم شيخ الإسلام وحنا أما قول عمر نعمة البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة شيخ الإسلام نانا نبري كيني جفندكو وحي عمر بي ديسي سوكندكو نجير saxal ay bida bu fekkon dañoo bëgg saxal benn mbir même bu fekkee ne mbir la moo bañ koy saxal ñu tuxal ne ah saxaabi yu nangam day moo ko wax wax na nangam ak nangam da ngay gis ñu naan ah waxu saxaabi du xujja maanaam ab saxaabi yu waxam du firnde ci diine ci seeni lan mooy firnde ci diine dañ naan la yàlla nee na wala yenente bi sallallahu alayhi sallam nee na waaye saxaaba yi seeni wax du xujja mu ne xoolal kon bànneexu bakkan yow lu jiitu lii bu buñ la waxee saxaabi yu nee na nangam nga ne waxam du xujja ba nga bëggee saxal sa bidaa ngay sukkandiku si waxu saxaabi nga ne Umar ibn al moom moo wax lii kon lii day wane ne bidaa bu rafet am na te yow lu jiitu lii yaa doon wax ne saxaabi yu waxam du firnde si dine donte ne wax jooju euh, du lu ñu boyal كما الشيخ مصطفى جنجي قول الصحابي مانام صحابي سيني وخ كن دو بايل ندو حجة وهي أمنا أي فرم فاكيو سي أمسي وخي بروم خم خمي كدلو سي آه، بروم خم خمي سي تير أصولي دنكو فاقيس bu fekke sahaba yeb dañu deppo ci ben wax dañu tudde ijma amul werantene hujja ذلك saxaaba yu fekkee dafa wax wax joo xam ne siiw na ñu bari si saxaaba yi dégg ko ñu mu jote leen te amul kenn ku ko wedd si ñoom bu boobaa it kama yaqulu cheikh alamin الشنقيطي رحمه الله تعالى بوبا حجة له كن دال أمنا فرم فاتي كن دو بويل نوخو صحابي دو حجة كلا واي أمنا فرم فاتي قسي أم bu fekkee nag wuute am na si diggante saxaaba yi am ko wax li am keneen ko wax lele bu boobaa am na ay faram-fàcce ak sew-sew yu am foofee téere usul yi ñoo si yaatal fii du palaasam waaye lim si jublu rek moom cheikh lislaam ci ne da ngay fekk ñuy delloo waxi saaxib waxi saxaaba ci kaw ne du xujja waaye ba ñu bëggee saxal seeni bidaa di sukkandiku si waxi umar ibn alxataab radiallahu taala anhu ngir rafetal ay bidaa te loole nee na ca dëgg dëgg dëgg topp sa bakkan la bokk na ci yooyu comme ni ko Cheikh euh, Moustapha euh, junjee fii ci masala bi ñu doon junj léegi di waxaw saxaabi mu ne ilaamul muwaqqiin euh, bu ibn al qayyim rahimahullahu taala كون منافعلة التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب واي اقلم سمن تدون اقلم سمن تدون ندخ لن لنا في بفكنا يو دعا جابنا وهي صحابي دو حجة وفكنا دفن يو صح دي ووتك تكس بلر ناني موي وخي ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم mu ne bum si bum si mënti doon kenn du jël waxi kenn di ko muaraba maanaam di ko gaaral ak di ko juuyoo ak waxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ko ibnu abbas radiallahu taala anhuma waxee woon gaaya يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وعمر من نستوت أي خير جوجي سي أسمان واتش سين كو خير يجوجي أسمان واتش سين كو جيرلان من أن لين ينتبه صلى الله عليه وسلم نانا ينن من أبو بكر أكو عمر نانا بفكيني ابن عباس رضي الله تعالى عنه dafay wax wax ju mel nii ci koo xam ne dafay gaaral waxi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci waxi abu bakr ak omar kon lu ñuy wax ci koo xam ne waxuma la waxi abu bakr waaye waxu omar danga naan ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam moom moo wax nangam ak nangam mu naan la waaye diw nee na ku dul bakr ak omar gannaaw loola mu ne fa ida kaana nasu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa bu fekkee ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kàddoom dafa ñëw texte bu leer nañ di wane ne benn mbir mbir mii day lu ñu sopp la wala mbir mii lu war la gannaawam lu ñu war a def la tegtal ñëw di ko wane boyal ko doonte ne jëfuñu ko ci jamonoom lu ci mel ni la la mu bind lu woon bàyyi ko fi li ñuy tuddee kitaabu sadaqa alladi axrajahu abu bakr mbir yi nga xam ne moom mu aju woon ci wàllu azaka ak faram sa aju nga xam ne yenente bi sallallahu waxoon na ko bàyyi ko fi jiitu lu jiitu mu fiy jóge bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna Aboubacar daal di jëfe loolu est-ce que dañ naan comme que jëfuñu ko woon ci jamono yenente bi sallallahu alayhi bi daa la déedéet waaye moom yenente bi sallallahu waxoon jiitu na ci loola moom moo fi waxoon bàyyi fi kadalika bépp jëf boo xam ne yoonal na ko moom yenente bi sallallahu alayhi dont ne jëfu ko woon mbaa mu jëf ko comme lii ñuy bëgg a wax nii di taraawix moom si jëmmi boppam moo ko njëkk a taxawee lu jiitu mu fi jóge comme nañ ko junjee woon léegi kon loole du yell mukk mu a ñu koy tuddee bidaa kenn mënu koo tuddee bidaa nañ koy tuddee bidaa si wàllu maanaam kàllaama kese la maanaam si wàllu lu bees si nit ñi nii waaye donte ne nekkul lu bees ndax mosoon nañ ko mosoon nañ ko def waaye suura ñu ko defee ak xaal bi comme ni ko Shaatibi waxe woon léegi moom moo tax ñu tuddee ko bidaa booba tax borom xam di ko tuddee bidaa lugawiya maanaam bidaa rek si wàllu làmmiñ nii ndax du lu bees du lu bees du lu ñu sos jiitu woon na jëfoon nañ ko waaye dañ koo bàyyi woon nit ñi dem ba mel ni dañ koo fàtte ñu dundalaat ko dundalaat googu ñu ko dundalaat mu beesaat si nit ñi si côté boobu lañ ko tuddee bidaa mu ne comme ni ko alxaafid ibnu rajab rahimahullahu taala leerale kadalika si jaami alulum walxikam قال وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ من ku nekk xam na ne wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba waxee ne lépp luy bidaa ak réer la lépp lu ñu sos lépp lu ñu sos ak réer la jubluwu si lépp lu ñu sos jubluwu si lépp lu ñu sos ndax nee na lii di diine lislaam lu ñu sos la diine lislaam dañ koo sos bal kullu diinin jaat bihi rusul fa huwa amalun mubtada' bal mbollem diine yi nga xamne ne yenente yi indi won nañ ko ay diine la yo xamne dañ leena commencer sos leen waaye wa inna ma arada mabtudi min al amal allati lam yashraha huwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li yëpp si waxi cheikh al islam na bob nee neena lam sa jublu ci ay mbir yu ñu sos mooy mbir yi ñu sos te moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam indiw ko gannaaw ba mu fi jógee moom moo indi diine ji moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci diine ji gannaaw nag la mu jàngale la wax ne lu ñu sos wa iyaakum wa muhdathati al umur anam ghayra amrihi sallallahu alayhi wasallam kadhalika hadith bañ leen junjoon ci commencement wax ji من عمل عملا ليس عليه امرنا كيف كيف بن جف تقول تي سنو ديغل تقول تي جف يننت بي صلى الله عليه وسلم اك ديغلم كون لولاي لا نجبلو سي سوس غناوام واي واخنيو لا لو خامني فك فك nga ciosanam ci dine yenente bi sallallahu alayhi wasallam digle ko mba mu ko dan def nga ñew wala ngay sukkandiku si jëf joojee nga xam ne Omar dundalaat na ko beesalaat ko donte ne lu fi nekkoon la bu njëkk ngay sukkandiku si waxam ngir sos ay mbir yoo xam ne amul woon mësta am waaye dañ koo sos nga bëgg koo saxal ci lële kon loolee eh, am na différence bu rëy a rëy bu fekkee da ngay qiyaas te dinañ si ñëw si kanam si آه، سين لنت لنت بيني وقت ذلك سواخي عمر بن عبد العزيز كدي لك لنيار مريو بقول تلوني تد القياس مع الفارق دينشني وسكنم أو أخي شيخ بن آه، فاسد فاسد الاعتبار دي لك لنيار يبقول ديكو نيرو له تبقو نيو لولي واحد يقول من إذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا ينتبه صلى الله عليه وسلم ومقع إيه صحابان دندن جلي دي تخوي وير كور دي جلي جلي نافلة نافلة كور دي كدف عن mbooloo maanaam di ko def ci mbooloo mi waaye daan nañ ko def individuellement kenn ku nekk di taxaw di julli moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ñu ko jujje woon sànq wax na ko fii taxawe na ko si weeru koor première guddi deuxième guddi troisième guddi ci quatrième guddi ga nit ñi bari lool jàkka ji fees ñuy xaar yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn yenente bi sallallahu alayhi wasallam génnul bañ ko laaje gannaaw ga mu ne leen إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة من لين لما ترى جن دي لين ركلا بن جما بن يفرط عالكو سين كاو نحمومي أنت بسوا سلامكو بريون يرمان لسي خيتوي gis na saxaaba yi xër gi ñu xër ah jàkka ji fees dell ñu xër ngir taxawee weeru koor bi mu ragal borom bi subhanahu wa taala daal di koy def farata benn yoon si xeet wi te bu boobaa dina diis ci ñenn ñi yenente bi salam toog bañ a génn mu ne loole rek moo ma teree génn si quatrième guddi ga mu ne jullee leen seen kër ya ndax li gën ci jullik naafila mooy nga defee ko sa kër li gën ci julli mooy nga defee ko sa kër lu dul farata farata dañ koy joxe ca mbooloo ma waaye lu dul farata defee ko defee ko sa kër ga moom moo gën mu ne fa allala sallallahu alayhi wa sallam adam alxuruj bi xashyati aliftirab mu ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal di indi yëlla ji tax génnul mooy ragal gi mu ragal ñu farataal ko ci xeet wi mu ne ci noona lañuy xamee kon li tax mu def la mu def daa am lu ko waral bu demee nag ba loola waral ko deñ mën nañoo delluwaat ca nañ ko daan defee delloowaat buum ca mboy mboy ga ndax yenente bi sallallahu alayhi jóge na fi amul lenn lu ñuy farataalaat moom ragal gi mu ragaloon ñu farataal ko moo taxoon defu ko kon bu mu ba mu demee ba yenente bi salaam jóge fi ñu xam ne kon farataal moom jeex na mu ne falamma kaana fi ahdi umar jamahum ala qari'in wahid même si jamonoy umar sax radiallahu taala anhu nit ñi daan nañ julli tarawih di naafilay koor waaye di ko defee individuellement wala ay mbooloo ñi taxaw fii ñi taxaw fële ah si jàkka ji yeneen tamit Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala an ba mu gisee loolee mu dajale leen ñoom ñëpp ci benn imam benn jàngkat mu leen di jiite bu mu gisee loolee ñu daal di leeral jàkka ji maanaam jàkka ji ñu taal ay làmp di julli dajaloo googu ñu dajaloo si benn imam taal ay làmp ci jàkka ji mel ni mbir moo xam ne gëj naa am lool wala musuñu ko sax gis ci melokaan woowa ndax depuis jamono yenente bi saa sallam lañ ko bàyyi woon am na si ñoo xam ne sax ñu ngi koy soog a gis ndax jamono jamonoy abubakar yépp kadalika defuñu ko umar ibn alxataab radiallahu taala anhu ba mu gisee lu mel nii nag ci la wax waxam ji ah lii de lu rafet la a melokaan wii nii ñii ñépp dajaloo ci benn imaam mu leen di jiite lii dara gënu koo rafet kon jubluwu si biddaa bu ñu sos si sharia ndax jëf la joo xam ne yenente bi sallallahu alayhi jëfoon na ko def na ko ñetti guddi di ko tegale kon mënatul a nekk bidaa ñaareel ba leeral na yilla ji tax moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu bàyyi ngir ragal ñu farataal ko kon bi mu demee ba jóge fi ba yir la jooju dañ umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu dajale nit ñi loola kon rafet gi mu rafet ak julli ga ak jàkka ji ak mbooloo mi moo tax mu tagg loolee ne lii de lu rafet la waaye jublu si ne nit ki dafay sos ay bidaa si diine comme ni ko waaji di waxee ak comme ni ko yeneen bidaakat yi di waxee di ko jéem a saxal ci waxee Umar ibn al-Khattab mu ne wa qaala cheikhul islaam أيضا في الاقتضاء أما صلاة التراويح فليست بدعة في التشريع بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله من دي جل كار أي نافلة لولا دو بدعة شريعة بل سح سنة لا سو خمنا وخي ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم نيونا ديكو وانا ديكو تكتلي أجفم دخ مما وحني إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة مم ينتبي صلى الله عليه وسلم منه سن برام دي borom bi subhanahu wa taala moo farataal ci yéen woor weeru koor man yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sunnaal ci yéen ngeen taxawee ko di julli kon lii wax la moom yenente bi kon moom moo sunnaal loolee kon mënatu la nekk bidaa kon di ko julli di ko def mbooloo du bidaa bal hiya sunna fi sharia bal qad sallaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana li koy wane si jëfam mooy moom si boppam moom yenente bi soo salaam taxawe na ko julli ko ñaari guddi ba ñetti guddi muy taxaw di julli ànd ak saxaaba yi yi lii di tarawih moom cheikh lislaam mu ne yamul foofu waaye julli na ko sax si li ñu tuddee ashral awaaxir di fukki guddi yi mujj si weeru koor ànd kook mbooloo si saxaaba yi julli ko ay yooni yooni yoon moom moo waxaat ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam inna arrajula ida salla maa al imaami xata yansarif kutiba lahu qiyaamu layla bokk na si li koy saxal si ay waxam ba léegi mu ne nit ki day bu fekkee dafa ànd ak imaamam julli ba julli ga jeex ba imaam bi sëlmal jeexal julli gi kookay day yàlla dina ko bindal ne dafa taxawe guddi gi yàpp julli ko loolu ngëneel la guy xiirtal ci taxawee weeru koor di ko julli kon ba léegi ci waxu yenente bi soo sallam bi wane ne loolee sunna la mënta nekk benn yoon bidaa si xadis bu mel nii nee na si laal imaamu ahmad sukkandiku ak boroom xam-xam yu bari ci ne li gën ci lii naafilay koor mooy julee ko ci mbooloo mooy waxi jumhur al ilm xilaafan lil malikiya wuute seeg malikiya yi ñi nga xam ne dañuy ngiroo ngiru malik borom xam-xam yi lu ëpp ci ñoom dañ ne li gën mooy jullee ko ci mbooloo ndax texte yu bari yi ñëw di ko wane bokk na ci texte yooyee xadis bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax fii ci la borom xam-xam yi sukkandiku ne naa naafilay koor defe ko si mbooloo moom moo gën nga koy defee sa kër yow kese kon wax ji mu wax nee na kon danga nga siy gis xiirtal ci di taxawee li nga xam ne moom mooy weeru koor ci gannaaw imaam ndax nee na boo julleeg imaam bi ba imaam sëlmal nga doog a ñibbi des na la bindal ne guddi gi yëpp nga taxawee kon loolu moom moo gën a dëgër di wane ne lii kon sunna la sunna guñu ba yàlla nit ñi daan nañ ko def ci jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy dund mu saxal leen si loola moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon lii mooy tontu képp kuy sukkandiku si waxi Omar di jéem a rafetal ay bidaa te lii du bidaa ba mu waxee ne nicmati albidaatu haadihi muy continuer moom cheikh mohammad ibrahim rahimahullahu taala ba léegi di tontu waa ji ci lii ne bu fekkoon dañ koo wax ni waaw yow yaa ngi lëkkale ñaari mbir li ñu tuddee taxqiqul manaat mooy lii ngay wax ci la nga koy wékk ca dëgg dëgg dëgg waneel maanaam niñ ko mën a wékkee ci loola ba mu dem te loolu mënta am ndax si lii di qiyaas booy qiyaas ñaari mbir maanaam di niroole dara ak leneen di leen boole benn atte na fekk nga mën a def li ñu tuddee taxqiqul manaat te mooy la ngay lëkkale mu bokk ak lii nga xam ne moom nga ko bëgg a lëkkaleel jox leen benn atte nga mën ko saa wékk li ñu tuddee taxriirul manaat ak taxqiqul manaat mënta nekk fii nii ndax lii nekk na loo xam ne lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam sunnaal la defoon ko ba jóge fi Omar ñëw dundalaat ko yow nag lee ngay bëgg a lëkkaleeg lii yenent bi sallallahu alayhi wasallam musu koo def saxaaba yi musuñu koo def musuñu koo xam si lislaam bal dafa ñëw di wuuteeg ndigal yenente bi sallallahu alayhi wasallam si yeñuy sos ak di xewal ci diine كون لولي قياس مل نوني باطل لي نيك قياس بو خامني اركانيا داجاول مانام بونكي قياس بونكي قياس غير لكل نياري مير جوخ لين بن اتا سي دينه دا فام اي شارت فام اي بونك بونك يوي بو فكه مونوكو داجالي مونتا داجالي سي مير مي دا فاي نيك باطل لو يقول لي نيك كين دسوكانديكو جو ملني مسالميني من وإنما يقع مثل هذا الغلط ومثل اتباع الهوى هذا الباب بعزل الكلام عن أسبابه لينك لكوي ورل أنا مجوم تيملني لكوي ورل أكدي توب بنيخيني موي وحجة فنكو وخي أك سبب بك ورل ko waral nga tàqale ko nga indi rek jenn wax joo xam ne dafa am contexte buñ ko waxee am sabab bu waral wax ja nga bàyyi fale sabab ba génn ko si contexte biñ ko waxee woon nga indi ko si sa bëgg-bëgg yow loolu moom mooy waral mbir yu mel nii mu ne falamma عزل هذا الكاتب وغيره ممن يتكلمون عن هذا الأثر سبب هذا القول من الفاروق أو سبب هذا القول من الفاروق وأرضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة ذهبوا يحتجون بهذه المقالة على ما أحدثوه من البدع وهم لا يخالفون آه، إلا الرافضة وانا باغا خاميني بند كات بي دي محمد مصطفى الشنقيطي اد ني مل نيوم سي بداكتي كاتي بي ني عمر بي غير دي سي سوكاندي كو غير سخال بدا بو ملني لاكو وارال موي ген كو سي سبب بكو عمر وخي تي نيوم سي كو لوله rafida yi rek rafida yi rek ñoom ñoo wutee si masala mi mais borom xam-xam yëpp dëppoon nañ ne lii di at tarawih at tarawih ne sunna la amul kenn ku si wuute si borom xam-xami lislaam chiit yi nga xam ne ñooy rafida te laysa lahum ictibar aslan fi lxilaaf ñoom rek ñoom ñoo si wuute kama qaal alqaxtaaniyu raximahu llahu taala tallahi ma jacalat tarawih munkaran إلا الروافض شيعة الصلباني من أمل كنكو جل نافلة يكور نان منكر لما نام كن وركو دف لنياو لا كد الرافضي الرافضة دي شيت ينغا خمنا نيوم نيوي ساقا صحابي نيوم رك نيوك ويد تي ديني تي نيوم كن دوكو اعتبار تي ديني آه، لوليلا القحطاني المالكي رحمه الله تعالى آه، واخي مانام رافضي نيوم نيوي جليدي نافي لي كور ديكو ديف منكر ولياذ بالله كون امول كين كو تشيني لي دي رافتال بيدا غاي واخ نان بيدا بو رافت دي سي سوكانديكو سي تراويح بيغا خامني يننتي بي صلى الله عليه وسلم ديف نكو موم كيسه ديف نكو اندك صحابه ñu def ko ci jàkka ji te kenn weddiwu ko ngay ñëw di sukkandiku ci loolee ngir rafetal bidaa kon loolu moom moo aju ci masala bii nga xam ne waa ji di lënt lënt bi nga xam ne indiwoon na ko lii la ci cheikh bi tontu te muy lu leer nañ mi euh, bu ko defee dafay daal di tuxu ci beneen shubha bi di mooy comme nuñ ko junjee woon ci wax jamu wax ne tuxdathu linnaasi aqdiya bi qadri ma axdathu min alfujur ñu koy askanalee Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala nee na lam sa jublu moom Shinqiti bi ni ay fa kadalika tuxdathu lahum muraghibaatin fi lxayri bi qadri ma axdathu min alfutur fii it si buntu qiyaas lay duggee qiyaas mooy di lëkkale ay mbir ak diko ko niroole ngir jox ko même atte bi donte ne lamuy muy lëkkale lëkkaloowul donte ne lamuy bolé bolo bolé suko ndax dafa wax ne umar ibn abdul aziz dafa wax ne tuhdathu lin nas aqdiya bi qadri ma ahdathu min alfujur nit ñi des na len xewalal ay atte selon lañuy xewal ci ay crime ak i ñaawteef selon la ñuy xewal ci ay ak ñaawteef loola junjoon nañ ko si jotaay ba la weesu ne maanaam attekat bi la muy atte ci ay punition nit def dara ku def dara dañ koy def nangam ku def dara dañ koy def nangam rawatina si baabu at taazir yar maanaam ku def dara ñu war laa yar loolee kenn du ko tënk ci nas ne faaw texte bi ñëw leral ne diw mi li lay amna ci yo xamne texte yi ñëw na leral ko waye amna ci yo xamne xam ne bi mom moy xol la yeyo ak wa jojé la mu def ak nam ko defé solo jamono ju nek mu atte ci mom lo xamne mom la yello waxe umar bi ni ci wàllu waw dina ñëw ak leral ci mom Ashinqiti mu jël wax ji ne kadalika maanaam noonee nga xamee ne dañuy xewal ay àtte yu bees ci yar nit ñi kadalika noon la ñuy xewalee ci nit ñi lu leen di sawarloo bu fekkee dañoo am ak tayal wala ak bàyyeeku ñu sosal leen ay mbir ay bidaa mhm, ngir sawarloo leen ngir jaamuloo leen yàlla subhanahu wa taala xoolal qiyaas bii nii xoolal lii muy bëgg a lëkkale fe atté kat bi di atte nit ñi ak di leen punir ci dara yow fi nga ne da ngay xewal ay jaamu yàlla ngir sawarloo nit ñi da ngay xewal ay jaamu yàlla sos ay bidaa ngir sawarloo nit ñi def nangam ak nangam mu ne undur ila hada al madxal alladi daxala xoolal fi mu dugg rek mu ne wala aclamu axadan ixtaja bi qawli cumar bn abdulaziz misla hada al ixtijaaj cheikh bi nee na xamuma kenn si borom xam-xam yi kuy jëfandikoo wax omar ibn abdul aziz si waa ji fii nii moo ko jëfandikoo abadan من وإنما يدور كلام أهل العلم على أثر عمر xam علم المقاصد الشرعية وخبرهم خمخم ياب ني وخ سي أثر بيني بنشي وخ فنشي وخي موي سي لي تودي مقاصد الشرعية te mooy jubluwaayu sharia yu màgg yi te loolee am lëkk lëkkaloo gu rëy ak rëy lii di ilmu al usul ñu tuddee ilmu al maqasid foofee la si borom xam-xam yi di waxee mu ne boo xoolee lañu taalif si fànn bii mu la wax nii di al maqasid al sharia di jubluwaay yu màgg yi nga xam ne moo tax a jóg sharia di règle yu mag yi nga xam ne sharia si loolee la la aju mu ne boo ko xoolee wa ma yaxdusu linnaasi min al fujur wa zulm ak nit ñi lañuy xewal diko def sa su ne jamono ju nek ci togn tooñante sen digënté ak euh ay mbon mbon yi xew ci jamono ak ci nit ñi foofee lañuy jëfëndiko wax ji di athar bii nii ash ne rahimahullah desna ko tontu ci li ci waxi kadalika الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في نيم جفندكو فيني لسجيت معي أن هذا قياس في مقابلة النص الثابت في النهي عن الاتباع وهو من باب فساد الاعتبار جنجون نكو سانك قياس معنام بوي لك ñaari mbir diko nirole ngir jox ko même atté bi ci lo xamne texte dafa ñew leer nañ la qiyas ma'a texte boo xam ne ñëw na di tere bidaa di ko tere di ko dàq yow nga ñëw bàyyi fa texte bay tere ngay dem ci qiyaas ngir lëkkale ak niroole ngir jox ko àttey ne lii war nañ koo mën a def wala yoonal ko te muy bidaa te texte ñëw di tere bidaa te loole lu yàqu la wax ju yàqu la beneen ba mooy yaa ngi nee yaa ngi jëfandikoo qiyaas si loo xam ne nos ci texte boo xam ne du sax lu wér ci yoon woo xam ne wu ñu gërëm la jëlee ko si umar ibn abdul aziz la jiitu mooy fexeel wéral wax ji ba ba noppi mu nekk lu sax jóge si umar ibn abdul aziz ñu doog a ñëw ak yow si deuxième position ngir critiquer la mais ànd ak loolu wax ji amul càllale boo xam ne muy chaîne de transmission boo xam ne bu wér la bu jóge si umar ibn abdul aziz rahimahullahu taala ñetteel ba mooy même supposons ne lu wér la sax jóge ci Omar ibn Abdul Aziz wax ji dafa nekk ci benn côté di wax mbir yow nga ñëw di wax leneen waxe Omar bi dafa nekk fii yow ngay wax fële comme la ñu junjoon sànq si taxqiq al manat ba léegi ndax si ba léegi moom si mi ngi si buntu qiyaas di lëkkale ay mbir yo xam ne ngir jox ko même àtte te loolee lëkkaloowul fii ñu ngi koy jëfandikoo Cheikh Moustapha joxe na si e, misaal li su mel ni تضمين الصناع أو الظن في توجيه الأيمان دون مجرد الدعاوي فيقول أن الأولين توجت عليهم بعض الأحكام بصحة الأمانة والديانة والفضيلة لزمن لين تدي تضمين الصناع دي جانرو غارانتي بو خمنه ñi nga xam ne ñooy def dañ koy def muy garanti joxe na misaal koo xam ne dafa ñëw ngir liggéeyal la di wax ne moom mën na liggéeyu sàngam lu su mel ni menuiserie misaal léegi bi mu engagé liggéey boobu war mottali liggéey bi ndekete moom liggéey ba mu ne mën na ko di mën manager boobu noonu du métier mënu ko mu yàq mu yàq ci liggéey ba nga xam ne moom nga ko sasoon loolee la boroom xam yi di wax ne tadmin maanaam dafay garanti fekkee da ngeen ni ay accord lu jiitu liggéey boobee bu fekkee ne dafa yàq daf koy garanti dafay fay comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci man tatababa wa lam yulam minhu tib fa huwa damin képp ku ñëw naan fajkat la di faj fajlu te xamee su ko woon bu njëkk ne kii day ku am xam-xam la ci médecine walla ku am xam-xam la si am paj waaye moom mu ñëw di faj bu boobaa dafay garanti bu faatee bakkanu jàmbur mbaa mu làggal nit mbaa mu maanaam si faj ga mu nekk di faj mu yàq ci yàqal si nit boobaa daf koy garanti kon lii lañu tuddee tadminu sunna lii nii jamono ju ne jamono ju ne ak barab bu nekk mën na saa wuute ci ay atte comme li ko cheikh moustapha junjee léegi ñi tuddal mu la almuqawilin di ñi nga xam ne mooy entrepreneur yi tey da ngay gis koo xam ne dafay signé dafay signé ay uqud ñuy tuddee uqud yu bari ci diggante ay liggéey yu bari yoo xam ne da koy engagé ngir liggéey ko ci même temps siñante kii siñante kële siñante kële jox leen li nga xam ne moom mooy délai ne dinaa ci def liggéey boobee ñenn ñi boole si li nga xam ne moom mooy ñeme yàlla ba Euh, délai yooyu nga xam ne ak liggéey yooyu nga xam ne gàll na ko ci kawam si ñeenti kook seeni boroom du ko matal nam ko waxee woon ak lañu dëppoo woon bu ko defee si kaw loolee gàttañal bu fekkee daf saa am jóge ci moom moom entrepreneur boobu noonu bu boobaa dafay garanti booba dafay garanti loolee nga xam ne signé woon na ko ci commencement bi ne daf koy respecté kon loolee borom xam-xam yi dañ koy ubbi kenn du si tënk nit ñi ci nas boo xam ne dafa ñëw texte bu leer nañ ñi loole lañ jublu ci waxi umar bii ni mu wax ne taxduthu linnaasi aqdiya bi qadri ma axdathu min alfujur ndax nit ñi ak seenu caay-caay ñenn ñi ak seeni pexe saa su ne ak ya xewal ak di ko dajale ci ay mbir dina waral ci àttekat bi mu xool ci kenn ku nekk la nga yeyoo ci àtte mu jox la ko kon foofee la waxe Omar di dugg waaye kenn du ko dugal ci kenn du ko dugal ci di xewalal nit ñi ay jaamu yàlla ànd ak ne comme ni ko cheikh bi junjee ci biir wax ji eh, dafa nekk wax joo xam ne wax ju doy waar la ndax naka ngay fekkee nit ñi ànd ak la yàlla subhanahu wa farataal ci ñoom ci ay farata yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko ci ñoom ci ay sunna respecté wuñu loolu mënuñu koo jooxee na ko yàlla subhanahu wa taala ak na yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko fa ñukk nga ñëw di leen di yokkal yeneeni mbir di sos yeneeni mbir nga ne dangal ngir ngir nga sawar loo leen ci jaamu yàlla yow kii liñ ko sos àllub neen matalu ko farata yi joxewu ko nam ko waree li yenente bi soo sallam sunnaal yoonal ko muy ay mbir mënu koo matal yow nga ñëw di ko yokkal ci say wi kookee fa muy mujjee mooy lan mujj bàyyi lépp ni ko cheikh bi waxee fa muy te loolu moom mooy dëggal lañu jiitaloon ci bidaa saa su ne nit ñi dañuy sos ay bidaa bidaa yooyu ñëw di rey sunna yi bidaa fuñ ko sosee rek rey na fa sunna jiitaloon nañu wax jooju si wax ibnu abbas ak yeneen si boroom xam-xam yi loo koy waral mooy dañuy ñëw fekk nit ñi ne dañ leen di sawarloo nangam ak nangam indil leen ay mbir te lañu leen sasoon bu njëkk sax mënuñu ko respecté ànd ak ne loolee ñuy góor góorlu naan dañ say góorlu dafay ñëw di rey li nga xam ne moom mooy sunna dafay rey li nga xam ne moom mooy sunna kon si gàttal loolee la ñuy tontu waa ji ci waxe Omar ibn Abdul Aziz bii ni si muy jéem a sukkandiku ngir lëkkale wax joojee ak ñoom la ñuy sos si ay bidaa ne dañ siy jublu rek li nga xam ne mooy yombalal nit ñi Eh, ak sawarloo leen si jaamu yàlla te sa dëgg-dëgg li nga xam ne moom mooy yombalal mooy li jógee si yenente bi soo salaam bi soo salaam kenn gënu koo ëpp yërmande si xeet wi junjoon nañ ko sànq si li tax génnul tarawih bi si ñeenteel fan ngir bañ ñu farataal ko yàlla subhanahu wa taala moom la wax si alquran meloo ko ay jikko yu màgg a màgg a màgg a màgg a si cofeel gu mu am si ñun ak yërmande gu mu am si xeet wi moom mooy boroom ki nga xam ne mooy yombal ak di woyafal bis boo fi bàyyee sunnaam di góorgóorlu si leneen xamal ne sori rek la lay jural ak réer ak sawara waliyaadu billah waaye li nga xam ne moom mooy sunnaam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolaay li yomb loolaay li dëppoo ak li nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala bëgg si nit ki cheikh bi bokk na salam len delloo te sa sunen gis ngeen si raddam bi ni da fay delloo nit ñi si sen seni borom xam-xam ndax mom mo waji da fay wote woné maliki la sa sunu ko delloo même si madhab al imam malik rahimahullahu taala lu wute li waji di wax mu ne wa qaala al allaamatu qasim ibn isa ibn naji fi sharh risalat al qayrawan ومشرحنا ليدي الرسالة أبو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله مام آه، قاسم بن عيسى مام شيخ مصطفى من كونغاجسنة مام شيخ آه، محمد بن إبراهيم لجل الشيخ الإسلام لتيمية وعنين الطريقة بيني تموي دلو نتني تي سمم سا كان يسوكن ديكو أك فاني فاني فاني أسكن على سين بوب di leen radde si waxi ñooñee loolee yoon la woo xam ne boroom xam-xam yu bari dañ ko daan sóobu ku si mel cheikh lislaam cheikh lislaam ibnu taymia rahimahullah si almarakuchiya comme ni mu ko waxee fii ba muy tontu waa sowu jant di almaghrib di leen delloo si borom xam-xamu xam malikiya yi ku si mel ni abi umar al talamanki ak ibn abi zayd al qayrawani ak ñeneen ak ñeneen loolee yoon la yu boroom xam-xam yi daan soobu yow da ngay woote woo ne maaliki nga ñu delloo la si borom xam-xamu malike yi rawatina ña jiitu ñi si ñoom si almadhab nga xam ne ñu daan xeex ay bidaa lañ yow nga ñëw tey si gannaawam moom al imam malik rahimahullahu taala di jaamoo yàlla ay bidaa di jaamoo yàlla ay pas-pas yu yàqu di jaamoo yàlla ay mbir yu garaaw a garaaw yoo xam ne dafa wuuteeg la al imam malik rahimahullahu taala nekkoon wuuteeg ay kàngaam si madhab al imam malik ci ñu ay kàng si ñoom nekkoon si madhab ahlu sunna wal jamaa dañ lay delloo si ñoom seen bopp balaa sax ñu lay delloo si mboolem borom xam-xamu lislaam yi loolu sax kon cheikh bi di tudd fi ashatibi tudd fi zarruq تدو في كيني وفي ليك دي قاسم نعيسى المالكي نيوني نبدا المالكيه مسيد دلو شنقزي بي دي دي كورد دي نيوني داخ موم سي مذهب بوبي لبوك كون القاسم بوبي لم وحسي نينا في معنى تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور قال معناه ما أحدثوا من الفجور مما ليس فيه نص mooy di leen xewalal ca ya ñuy xewal ci ay ñaawteef loo xam ne texte ñëw si comme niñ ko waxee woon amma texte bu ñëwee moom attekat bi dafay jëfee texte boobu waaye bu fekkee waaja dafa def loo xam ne ak defee ko si e, façon boo xam ne ak contexte boo xam ne texte ñëwul si loolee bu boobaa mën naa góor góorgóorlu jox ko atte ba mu yeyoo kon loolee lu jara a bàyyi xel la yaakaar naa ne waxtu wi mi ngi bëgg gudd dañu daal di taxaw foofu wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain